bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala wa saxbihi zawi ridwaani wa bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul al cheikh Mouhamadou Mountakha al li tariqatil muridi xafizahu llahu taala waraha mu jëm ci kàddu yu nuyoo kàddu yu cant ak i ngërëm ak kàddu yu ndokkeel ci at mu bees mi ñu tàbbi di leen ndokkeel itam ci xew-xew yu màgg yi weesu waaye di ndokkeel ci xew-xew bu màgg bi ñu dëgmal di màggalu Tuubaa sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp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 ñoom la sañ digal sañ leen a tere fi nga xam ne fa nekk ak lii ay ndigal mu jëm ci moom kon sëriñ bi nee mu mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag muy fàttali lii nga xam ne moom leen dégmal muy màggalu Tuuba màggalu Tuuba nag ni ko ñëpp maase ci xam day ndigalul sëriñ Tuuba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 xarajtu yowma sabti rabia safar aw thamina asar li xidmatil muxtaari fi sahri safar kon ni mu ko waxe waat rek wax ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon bis boobu bii nga xam ne mooy bis bu tedd nga bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ci làmmiñam leeral li ko taxoon tukki xam la it tukki bi lam ci jële ak la ko tax a jóg ak lam ci ame ci ay daraja mooy bis boo xam ne suñ lépp itam ci la defaroo moo te ñu def tanassur te sëriñ bi neewoon na law tanassurtu la daxaltu naar wal iyaasu billahi taala kon bis bu amutoon ni ko sëriñ mu Ka waxee ca ba itam yi rek budul ko nag bisam bii wolof nasraanu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 waris na koy fàttaliku ndax bis la woon bu wéet mu bàyyi ko woon ca Mbàkke Bari dem di liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi fi njabootam ku tedd ga ñu toll ci xam nga jamono yu tollu toll ci di door a tàmbalee dal alxuraan rek muy cheikh Mahamadou Moustapha ak cheikh Mahamadou Fadil ak cheikh Mahamadou Amin mu jël leen dénk leen rakam ju tedd ja di jëwriñam di ak cheikh Ibrahima Fati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 kon moom mbiram lépp da koo leer ba yàlla def nag mu dellu si ba njóbbu ko gànnaar mu motti liggéey ba mu fa doon def na mu ko waxee ci bayitam yi rek man zanna zayri xibba aami ak sasi mithla masiri rasa aami jay sasi thabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun seyru aksasin siwa jasa man li yaqaada baadu waxdan najasa mu ne fa ba jóge fa la fa xew lépp xam ko fa ñëpp maase ci jël jël seen lépp jëbbal ko Sëriñ ba boo muur seen ndege ni dañ lay wax ne la Mauritanie gépp dañoo juyoo ci lépp am des mbirum Sëriñ Tuubaa mbirum Sëriñ Tuubaa nag ña doon muur te ña ko ñëpp maase nañ ci dëppoo ci mbirum sëriñ bi muy tawfeex ju ko suñu borom defal mu de jóge fa ñu indi ko ci yéen xam ngeen sabab sa taxoon ñu indi ko fa ngir bëgg koo ber ngir xam ne Sëriñ Tuubaa fu mu nekk ñëpp dana ko fekk te bu yàggee fële ci mursani dana mujj alamu islaam bépp dana def yoon na say topp ci ginnaawam ñu andi ko fii ngir ber ko ñu gis Sëriñ Tuubaa nag na muy defare nit ñi taalibe yi di sellal seen ruux sellal seen xol di leen du bañ fees di leen yóbbu ci seen borom ñu dem ba gis taalibe àgg ci dayo ak niveau boo xam ne jaaxal na ñëpp ngir dem nañ bay àgg ci di dox ci kawe sàkkete duñ ko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 ndax nattu bii kat di màggal Tuubaa da def fu muy bëgg agsi natt bu ñu ko teg bu demee ba waxtu wa agsi lu ñu ko mas teg ci natt dañ koy fuuraat doom sol ñu tegaat ko sëriñ bi te du ci am dara lu weesu rasulullahi xamal ko noonu natt baa ngi bëgg agsi waaye ni ko ñëpp di yéege ni la ko yéege ba mu àgg ca at mujj ma lépp ci mag ñi li nett ni 1918 ci la ko sëriñ bi tàmbali màggal gi sëriñ bi ci waxam moo ko tàmbalit boppam di ko def te waxu ko kenn am na ñu wax ne ci ay fiq yu wóor euh, soxna Mariama Jaxate woy juru Cheikh Abdoul Ahad ak sëriñ Soxaybu bi mu fi bàyyi ko ci safar ba ci njëkk wax nañ ci la ko sëriñ bi tàmbalee ci biir kër gu mag gi booba it sëriñ bi yëgleeg ko ñu teg ci ñaari at wala ñett sëriñ bi xëy woote ndax dégg ngeen xissa bi ni ko sëriñ mu laay busa nettalee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 lépp lu ab taalibe bi man ci xelam ci xalaatam ci pëstifam ci yéenam ci jëfam war naa jël lépp jëmale ko ci bis bi moo tax keroog ba ñuy def ndaje ma ci njaarim waxoon naa leen neneen sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na màggal Tuubaa mooy suñu fête indépendance loolu nag la tax mu wax ko moo tax ñu jot suñu bopp ndax bu ñu ko jot bu bu màggal Tuubaa amutoon kat sëriñ bi dem liggéeyal boromam kon nag ne ba ba nag ne ci loxoy Tuubaa bi kon loolu waris na koy bu baax.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 màggal Tuubaa da agsi ci àdduna bu ñu demee ba ëllëg ci na kenn ku ci ne sa kër bis ba daa màggal Tuubaa gi daa agsi bu ñu agsee kenn ku ne da nga yëg xéewalu yokkuwaat ci yow kon màggal gi kenn lambatuwu ko ndigalu Sëriñ Tuubaa lu mu santaan lu wér kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi ci soññi taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu góor góorlu ci nga ngi cee yokk seen pëseef te xam ne lu ci lu ko waay wéer attan ko parce que bu ko waay yan attan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 yaa man ajaabani wa radita anni wa nafaatani wa baarakta li ijaabatan wa warjan wa nafan wa barakatan lam yusbax ila misliha wala yusbax ila misliha wa salabta ilaya fi yowmi xatti haasa alxatta alqurana wa lisaan alarabi wa lisaan alarabi wa manafia dunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa baarik ala sayidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaa ma jaxata haasihi alqasidata alhabba ilayka min kulli mawzunin qablaha baatub al arnab dugg ci biir mooy al ijaabatu mooy alif bi raa gi di redan noon gi di nafo baa gi di barakatu kon Serigne Touba léppam ay mbóot la kon noonu la ko wéyale ba 1927 mu ñibbi si Touba ginnaaw mi itam ki ko njëkk a wuutu di ay Cheikh Mouhamadou Moustapha wéyal ko ca ndigalu Serigne Touba la na mu ko daa defe ñëpp di ko ànd moom ba 1945 ak Cheikh Mouhamadul Fadil ñëw bi mu dikkee itam diggante taalibe Serigne Touba yépp ne nañ koy tooxal si fii muy ndigalu Serigne Touba ngir xam bis yi dem itteelu woon Serigne kon nag nit ñi li ñuy ku nekk na ngay gisee ak na ngay waxe waaye am na loo xam ne jërul guddali wax bu ko Serigne Touba santaani wutoon itam te Cheikh Mouhamadou Fadil xalaat ko santaane ko it te Serigne bi mosu ko waxee doy noonu sëkk.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 Cheikh Sali Cheikh Abdou Khadre Mbacké menn at la ko màggal bàyyi koo fi ginnaaw bi itam ak Cheikh Salif Mbacké ñëw wóyalaat liggéey ba na ko ñooñu daa defee bi itam bi nga xam ne bàyyi na fi ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëw mu njëkk a wutu Serigne Touba ci ay sëtam liggéey ba na ko kilifa bi daa defee bi ñu fi bàyyi ko itam ak Cheikh Sidi Moukhtar ñëw wóyalaat liggéey bi ak ndigal la na ko kilifa bi daa defe ba bàyyi koo fi yàlla def nag.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 kon nag li nga xam ne nag mooy li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi ko ci fàttali di ko ci bàyyil waxe taalibe bi yépp mooy nee na nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom du ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci Sëriñ Tuubaa tontoon ca pest ba ci njaarim rek lay wax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 ndax da ngeen yaakaar ne lu ma soob rek soob na yàlla ñu ne ko waaw Mbàkke mu ne mu lu soob yàlla rek soob na ma ndax ab jàmm balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Serigne Touba nañ xam fa mu nekkoon ci biir loolu itam na ci suñu xel danaa ci dellusiwaat li war a tax suñu xel ci kon Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yëpp ñu góorgóorlu nag ci.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 naan ku ko def gudd fan ku ko def naa nga mucc ci nangam ba mu xàmmee ba nëgë ni mosu ko def dafa jël léppam jooyal ko ci yàlla jël léppam jooyal ko Sëriñ Tuubaa mosu see jëfandikoo dara lu weesu alxuraan ak xasida ak wirdu maxuus ak ak ak ak ak tudd yàlla kon keneen foofa xam ngeen ne rëgalu jàngoro kon bu ngeen gisee moom di ko def day won nit ñi aw yoon kon nee na mi ngi koy diggal taalibe Sëriñ Tuubaa kon nit ñi itam ta ab taalibe sa tànnal boppam la ko ab sëriñam tànnal mooy li ci moom alxeyru fi maxtaarahul muxtaaru laa fi lati nufusukum taxtaaru jàngoro ji am naag amut ak yépp bu suñu yónnee ndax jàngoro li sëriñ Tuubaa wax rek is laysa ma maasuman min al marad loolu lépp day guddali wax ma Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk yaa nekkal fi sëriñ Tuubaa boo xasee gëm ne am na digle ci lam ca war a wax kenn du warta jéem a lijjanti jàngoro ji amut loolu weddi waxe sëñ bi la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 ndax ñëpp mënaluñ seen bopp ndax am na ci ñoo xam ne euh, bu ñu amee luñ lekk tey mën nañoo bañ a am luñ reer kooko masque yombut ci moom boo ko ko diggalee dana jafe kon sëriñ bi nee na mu ngi diggal mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yëpp kenn ku ci ne lu ci waay man ci jënd ay masque def ko àddee sëriñ Tuubaa joxe ko ngir jàppalee ko ñi ko seen ñi nga xam ne seen kattan ak agguja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 jébbal ko ko am na commission bi koy dajale kooku mën a yóbbu ci kër sëriñ bi nga yóbbu ko fa bu dul loolu itam euh, jox naa ndigal sëriñ Ousmane ñu def taxawal benn euh, commission bu yaatu boo xam ne dañ ko yaatal ci dëkk bi buñ ko dajalee yóbbu ko ba ci sëriñ bi nu mu ko santaanee ñu war ko tasaare ci nit ñu def ko kon lool itam ñu ngi ciy soññ bokk teel bi yëpp di euh, gërëm ñëpp nag bëgg ñëpp gën a bàyyi xel waxtu fi mu toll. ci biir loolu itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi ndax li jiitu ñu ñun ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Tuubaa moom bu suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu suñu bakkan doon des te sëriñ bi foofu la nekk bëj ci suñu suñu bakkan doon des itam ndax saxaaba yi kat seen alal amwaalahum wa anfusahum jana anna lahum janna anfusahum wa amwaalahum bi anna istara minal mu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum janna seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu Sëriñ Tuubaa dara gënu koo for ci ñun kon bu ci suñu bakkan doon dese jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëgg la man de ndigalu Sëriñ Tuubaa lii lépp lu naaru dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama te xam naa lépp ci taalibe yi foofu lañ ne ndax wóor na wóor nañu ne ko defee Pastef te dara ñu gistal nekku ca Sëriñ Tuubaa la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa bakkan ca la war a dese te te te te sëñ bi bëggee ko noonu it. booy faat di tàbbee jana kon nag loolu bu ci kenn am tiitaange te xam ne Serigne Touba Serigne Souhaï bu daana nett li am na ko ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ngeen fonk docteur lool te ma gis Serigne Touba fonk doon docteur Serigne bi ne ko waaw Serigne bi de dalaa jàkkaarloo jàngaro na ko jàngoro bàyyil diw waaw comme nag loolu moom kenn aggu ca daraja jooju ñun. nañ ñuy fexe ba jël suñ lépp jëbal ko Sëriñ Tuubaa tey tey tey tey tey wax yi Sëriñ Tuubaa nit ñëw na wér di siyaare si ko jàmbat ku wér di Sëriñ Tuubaa jël loxoom teg ko ci boppam ne ko fakka fakka chef na maa bii mu ndur mu tàggoo jàngoro ja dégg ngeen benn naar boo xam ne ci waa kër Sëriñ Tuubaa la jóge dafa wér lool bañ jàpp ne faatu na daanaka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 la ko sëñ bi waxoon mu jaaxle lool ne man ah man de xanaa yàlla daal na mu ma wér nee na fi mu tàmbalee jaaxle rek am lu tolloog fenêtre bi ci saxaar bi fëggu ko te gisu jëmm ji nekk bul fàtte bis bi la siñ bi waxoon àllarba ba mu ko jëfandikoo daa tàggoog wér di nga nee na damaa wér ba mu ne ku mës wér di kon na seenum xel daal bu baax na suñum xel daal ñun taalibe bi yëpp te xam ne Sëriñ Tuubaa eh, dox na suñu digg ak lépp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 ak lépp lu mu nekk ñu ànd ko ñoom kenn ku ci ne def na kon sëriñ bi naa ne ci li weesu lépp ak li agsiwut mi ngi leen sant di leen gërëm leen ñaane ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp jëmoo tax kenn ku ci ne na taxaw la te nga day cee ngërëm di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi ñoo njëkk a topp sëriñ Tuubaa muy seexi sëriñ Tuubaa yi sëriñ bi naa ne mi ngi leen sant di leen gërëm bu baax ndax kenn ku ci nekkat taxawaay ba sa maam ju tedd ja taxawoon ci Serigne Touba ndax ñoom kat bay ñëw ci sëñ bi rawat na ña njëkk ñëw dañoo jaayante woon rek ngir ëllëg waaye jàpp ñoo ne sax dari àdduna nekk fekk daan leen ci fekk bokk ci ne sëriñ bi gërëm la toftal la mbooloo àdduna ci diiru sa dund ak diiru sa dund njaboot kon ñooñ ñooñu itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ndax la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek daa wax ne bu ñu wax yoon wi mooy Cheikh Serigne Touba yi ndax bu tolloo Serigne Touba akum njabootam la jox kon Serigne bi neen mi ngi leen sant yéen itam leen gërëm di leen ñaanal gis na ko chef bi ci li weesu lépp ni ngeen ci waxee digg moom kenn ku ci ne li ngay jëf ca digg moom wóonu ko ne bu fi sama am nekkoon jëf ji du ko weesu kenn ku ci ne xam na ne boo doon jëfal Serigne Touba itam doo ko weesu kon nag Serigne Touba mi nga xam ne moo leen tax di jëf mu ngi leen di ñaanal ci dara jàmm kenn ku ci ne mu gàtt ci sa jëf dafay la ca lu ko suñor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 kon sëriñ bi neena na foofa itam mu leen ci soññ di leen ci ñaax ñu fexe ba siyaare yëpp jàll te xam na ne jubaay suñu tubaab kenn du fi ñëw lor di la fa toppee waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom. di gërëm itam raw du Rayaahiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ba ci université bi ñoom da ko sëriñ bi teg ci seen loxo ñoom itam ba. bañ jotee ndigal li ba nëgg ni ci jamonoy Serigne Saliou Mbacké ba nëgg ni ñu ñu ngi ci taxaw taxawaay bu rafet ne at mu jot lu ñu jëfoon danañ ko yokk Serigne bi neen mi ngi leen sant bu baax ci ni jàllale li nga xam ne mooy njàngaleem Serigne tubaa ba ñi nga xam ne xamu xamuñu woon Serigne bi di ci gën a gindi ko di gërëm itam waa daayira tuubaa ci kanam ñoom itam seen pëstéef ak seen taxawaay adduna sépp xam nañ ko ndax waxuma la ci màggal bi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 kuy xalaat ci yéen dara rek daa jàpp ne Sëriñ Tuubaa dara jomb na ko neen nag la mu xamoon ci yéen ba nëgë ni loolu rek la gis yéen ci taxawaayu positif gis na at mépp yéen a ngi ànd ak moom liggéey fu mu jëm ak fu mu nekk ak fu mu lu mu leen digal yéen nga ca ba ci université bi këru xasida gam leen sant loolu itam yéen ca di ci taxaw taxawaay bu rafet rafet di gërëm waa daayira Safinatu Amaan nga xam ne ñoom itam war dëkk bi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 jël nañ fa ay bâtiment yu bare bari di gërëm waa daayira wilaaya ndax bañ tàmbalee màggal gi ba na gën ñoom itam ñu ngi koy ànd ak ñun te musuñ cee toqi musuñ cee dàcc di gërëm itam daayira bi nga xam ne moo ëmb doom doomi cheikh nga xam ne at mu jot bu weer safar bi tàmbalee bañ àgg ci bis ba lépp liggéey bi dañ koy ànd ak ñun ci na mu gën a rafet na mu gën a baax di ko defee positif di gërëm itam waa comité organisation bi